Aïssatou Mbaye Fall euh, gendarmerie dafa teg loxo euh, ay euh, pirate c'est vrai que yàgg nañu jooy pirate depuis que ñu koy dégg mm. artistes yi dañu ko mës di kaas et à chaque fois comme li nga ñuy bëgg a wax dañuy dégg ni gendarmerie dem na teg loxo ay pirate waaw ko waxee Baye Cheikh démb daal euh, jot nañu jàpp ci lu toll ci euh, dix mille CD lu ko ëpp sax la ak ay imprimante ay euh, graveur ak yooyu def nañ si benn élément démb demoon nañu waa waa SODAV ak acteurs culturels yeeg yooyu ak waa AIM amaloon nañu démb benn conférence de presse fii nii ci Five ñu teewul leen après ñu dellu si si plateau lu toll ci ay junniy junniy CD nag ñu nangu ko ci loxoy pirate yi lu toll ci une trentaine de personnes ñu jàpp leen brigade de recherche bu gendarmerie bu Colobane nag taxaw rek ngir xeex lii di nga xamante ne mooy piraterie waa SODAV nag ñoom kontaan waaye lu ñu xamle nag mooy ne xeex bi xaajagul jeex. lii gendarmerie def lu ñuy rafet la tey parce que dañu tee dimbale parce que soo jëlee xayma ñun yu ñu fi am. 2003 fas xeetum droit yi ñu koy wax droit de reproduction daf ñu doon indi lu mon ne téeméeri million ak fanweer ak juróom-benn yu teg soo ñëwee 2017 motul sax ñetti million ñaari million motul sax cinq cent mille bi ci teg donc gis nañ ne dafa wàcc drastiquement. acteurs culturels yi maanaam woykat yi ak yi ñeneen ne faaw lëkkaloo bi gën a yaatu ngir ñu mën éradiquer phénomène bile. je pense que jéego la rek ci xeex wi waaye xeex wi des na lu bare bari ndaxte jëf ji ñu def ni tey dëgg la dana yee salaat information bi dana yee ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal mooy sàcc yi euh, waaye tamit defoon nañ ko fi. ay at ca ginnaaw jamonoy bees de yaa. ñu li Abdou Guèye il faut pas qu'on lâche. Ah, il comme <laughs> comme ni il faut pas lâcher l'affaire. Ah, te bu leen sonn luñ ci mënti def te yéen jàpp leen si c'est c'est zéro. donc on vous dañ leen koy ñaanaat ñun ak yéen a bokk ñoo bokk lamb quoi. bu ngeen ñu jàppale mu jàll parce que li ñuy liggéey ak li ngeen di liggéey moo dafa dafa jaxasoo boobu lu bari. Mm. ci kaddu yi njiitu ay yem daxa nag duñ ko bàyyi am na sax benn plan d'action bu ñu taxawal. gage pour que ñaari semaine yu nekk ñu defaat opération bi ba xam affaire bi fan lan lay lan lay mujjee. voilà mu nga donc waa ak waykat yi artistes yi ak waa euh, euh, comme AIM <laughs> j'allais dire IAM ah, euh, sama xel dem ci école bi mais AIM lu tudd donc ñoom ils ont parlé ci saisie boobu nga xam ne def nañu ko ci wàllu piraterie yi waaw comme ni ñu ko waxee ba lu toll si dix mille CD ay graveur imprimante ordinateur yooyu yëpp ñu ko loxo jël lu toll si une trentaine de personnes ñu ñu ñu téye leen defaree nañ leen sax ndax nga ni piraterie nekk loo xamante ne luy gàllankoor bu mag gàllankoor bu mag la ci wàllum acteurs yi muy woykat beeg producteurs yi nit ñi yàgg nañ si sonn euh, koñ bu dem ci tali bi nga gis koo xamante ne yore na benn CD ñëw di la ko jaay à un prix boo xamante ne gën na suufee loolu li nga xamante ne ki sonn ci liggéeyam ki créer jël créativité am sonn si def ko si moom la koy jaaye ah, donc 500 700 voilà cherul cherul dara et quelquefois peut-être que tu te dis Euh, sénégalais yi seen pouvoir d'achat Euh, ngandewul noonu peut-être que loolu daf leen bi arranger si benn côté waaye dafa nekk gàllankoor bu mag ci ñi nga xamante ne ñoo sonn si seen liggéey euh, pendant des années génne ko pour euh, pour bégal sénégalais donc bu nekk jéego boo xamante ne defe naa ne ñëpp rafetlu nañu ko ndaxte dina nekk loo xamante ne dina jàppale ñi nga xamante ne ñooy waykat yeeg producteur yeeg ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoo bokk ci wàllum secteur musical boobu ngir jàppale leen ci wàllum économie économie musicale ak euh, ci wàllum économie réew mi itam euh, mu nekk loo xamante ne defe naa ne euh, war nañ si gën a taxaw comme ni ñu ko waxee naam amoon na ay brigade yoo xamante ne taxawaloon nañ ko ngir xeex loolu ay organisme yoo xamante ne ñooy jàppale euh, waykat yi lu si mel ni SODAV BSDA lëkkaloo woon na ak benn brigade de recherche contre la piraterie et la contrefaçon mais defe naa ne toog nañu lu yàgg euh, ñu genre saisie yu mel ni ci wàllum CDI ak euh, yu nu mel mu nekk benn pas en avant bu ñu def ñuy ñan nag xam na mu nekk loo xamante ne dinañ si taxaw ngir daal jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaay CD piraté yi dañuy jàpp ni yi dañuy daan seen doole dañ leen bàyyi ñu euh, góorgóorlu wut lu ñu yóbbu euh, seen i kër artistes yi aussi c'est difficile pour eux euh, ñu dépenser xaalis bu bëri génne war koo jaayee par exemple 5000 ou même 2000 francs après ñu war koo mën a pirater yow doo ci am dara c'est ce sera compliqué pour moi depuis des années depuis ah, ma xippee ba tey maa ngi dégg piraterie voilà donc mais loolu nag naa fi bëgg a yàgg je pense que c'est important mm. ci ci point boobu di ko rafetlu parce que artiste bi tamit defe naa ne mënoo koo faa ba noppi yéene ko mu dee yéene ko mu gàtt fan parce que loolu euh, wax boobu lu muy misaal mooy yow man dama la fan boo génnee album lu ma dem jëndi copie bi ça veut si tombe malade lan moo kaa faj amul xaalis kooku ak voilà donc tout tout le secteur euh, bi nga xamante ne tey ñoo liggéey autour de cet nga xamante ne yow da nga naan ko personnellement ba noppi bu génnee album nga dem jënd copie ce n'est tu l'aimes pas kooku kooku du dëgg beneen bi mais nit nit koy jënd tamit du xam hologramme day dem jënd rek. noonu mais tu sais mais def nañ ci communication. je pense parce que hologramme. Mhm. hologramme je que ne. hologramme bi ñëpp Sénégal yi xam nañu ko. Mhm. Euh, tey boo gisee copie photo euh, lii la rek kayit bii la rek lanoo jël rek daal koy ngembal euh, CD bi. CD bi 100 francs la ñuy indiqué. Ah. feuille bi feuille tabax la ñuy jënd rek moom mooy 3200 nga am paquet kii imprimante bi. léegi nga daal di koy daal kaa def génnee ko soo ko génnee nag. léegi min nga marché bi. wax mais en parce que dama yàgg. dama dama dama yàgg xeex dama yàgg xeex copie ànd ci at waa SODAV donc euh, bu ñu gisee lu mel nii nga xamante ne kii ku moom lépp ci dépensé c'est trois cent francs ah et il gagne minimum

on sait jamais am ah, yenn oto yi ngay wër parce que yow tali bi foo romb rek di nga gis kenn kuy. boo jàllee si parce que tamit moyen tamit euh, ça fait défaut. pour que ñu mun xeex lu toll. parce que c'est à grande échelle du du rek local. Euh, que ce soit c'est un réseau. voilà réseau bu mag lay doon et puis euh, ce sera un combat assez assez ardu. Mm-hmm. Hadima Seyer. alors tout à l'heure bonjour déjà da nga doon wax waxu droit d'auteur par rapport ak artistes yi xam nga par exemple artiste bu fekkente ne moom mooy ñëw indi clip am ne la teg. tegal ma ko pour tey mu insister ci affaire droit d'auteur day xaw a metti moom li muy xalaat rek mooy na ko tegal clipam pour mu siiw génn nit ci xam ko euh, CD yi peut-être dinañ def patrouille peut-être que dinañ ko xeex et tout ça mais population bi ñoom ñoo si mën jàpp jël décision que ñoom du ñu jëndati CD pirate yi mhm. et li ma seetlu mooy boo jëndee tey peut-être yaa ngi wax euh, affaire au pouvoir d'achat tu vas l'acheter à 500 mhm. déglu ko une semaine mu xoosu mhm. parents yi bu matee nga dem jënd benn CD original boo xamante ne ça va durer pendant longtemps. oui de ces CD am na euh, téléchargement bu illégal bi. nous nous nous tous on le fait souvent. Euh, dañuy télécharger rek de film de vidéo quoi que ce soit moo tax ma ne ça ça ça va euh, boo fan man pour man man d'habitude artistes yi nga xamante ne dama leen fan carrément ni ñii dama leen bëgg boo ma proposé seen CD du ma ko nangu. su ma amee CD bi nga ne ma copier ma dama lay wax demal jënd. donc jaay. téléchargement bi le problème il est réglé en France ah je pense que si on passe par les réseaux de télécommunication. Okay. Euh, que le télé euh, le téléchargement quoi day peuvent le régler oui moo tax nit yi moo tax ñu xewal même Sénégal ñu ngi ciy dox euh, ak jumtukaayu xarala yu bees yi di jaarale seen ay woy foofu da ngay génne single mm-hmm. après on te demande de télécharger tu télécharges tu payes pas euh, tu n'as pas la chanson. Diakhou Massène <laughs> peut-être yenn saa itam Pape comme ni ñuy wax sama sama gu tayel gi defe naa romb rek jënd dem c'est beaucoup plus simple donc voilà ñun tey peut-être ñoom seen produit yi buñ ko hmm. gënoon yokk accès bi pour nit yi hmm. wala mu gën a simple wala mu gën a gaaw voilà au lieu ngay jóg juste pour dem jëndi CD hmm. voilà nga romb CD boo xamante ne da war a jënd nga jënd ko ak prix bu muy jar nga jàll dem je que voilà léeg doo ko gis ay CD originaux soo ko bëggee da dem ci benn endroit boo xamante question est-ce que affaire bi delluwul ginnaaw à l'époque y avait Talla euh, nga xam ne bu album de génn Sénégal yi dañu koy préparé dañ daan rang euh, par exemple euh, KFC lu tuddoon xaw ma nu mu tudd KFC xaw ma SFC McDo genre quelque chose comme ça Talla Diagne déedéet pas ma lan ay xale ngeen woon no non non tuddul AFC ah. oui quelque chose comme ça et que bu album daan génn dañ daan dem rang ah buntu Talla Diagne wala Massaer pour jënd foofu kas 7 mais léegi euh, on a plus ça en tout cas mais bon heureusement ba euh, jóg nañu quand même ba euh, bëgg a jàppale yi pour ñu xeex ci wàllu piraterie on les recevra certainement bis ci télé bi ñu débat waxtaane ko parce que c'est toujours bien de ci ay mbir yoo xamante ni dafay gaañ domaine bu mu mënti nekk bu ñu àggalee ak yeewu culture am na livre boo ñu présenté tey ay livre boo xamante ne benn sociologue je mais voilà dina ko wane Pape Samba benn léegi <laughs> waaye bàyyi ma waay cantine B52 Sandaga at Omar Gadiaga bàyyi ma ñooñu ñëpp xam naa leen fu ñu ne Sandaga <laughs> voilà <laughs> donc livre bi de la reine de Saba à Michelle Obama africaine héroïne d'hier et d'aujourd'hui ki ko nag benn sociologue la nekk expert expert en genre mi ngi tudd Awa Belital lim su jublu nag mooy wane figure yi nga xamante ne am na ay jéego yu ñu jot a def ci wàllum histoire muy ci ren d'hier et d'aujourd'hui ak ñu démb ñi euh, mu jël ku si mel ni euh, la première pharaon d'Égypte ak Hatshepsut suma juumulee si tur bi mhm. euh, ku si mel Nefertiti reine Anzinga mi nga xamante ne xam nañu lu mu xeex euh, Angola ci wàllum euh, esclavage euh, mu jël yaayu Chaka Zulu fii si Sénégal mu jël ku si mel ne mi nga xamante ne moo doon première africaine bu nga xamante ne nekk na école polytechnique bu Paris ñoom Winnie Mandela ñoom Michelle Obama ak yeneen yi jigéen ku lim jum ñoo xamante ne daf leen di dekkaliwaat ngir ñu mën a réapproprier waat suñu histoire Baye Cheikh. ah ben c'est très intéressant donc c'est un livre bu disponible fii. Ah, c'est disponible parce que cérémonie dédicace bi def nañ ko samedi bi ñu génn foofule mhm. ca Armata voilà donc c'est aux éditions Harmattan intéressant donc c'est un livre boo xamante ne mën ngeen ko am euh, que des femmes euh, héros oui héroïnes héroïnes d'accord ay Aline Sitoé Diatta tout ça. waaw Aline Sitoé je sais pas si elle est dedans. sérieux ah, su ma waxee damay wax lu ma kii mais moom leer na ma la ñuy ci biir. super je voulais te montrer mais bon peut-être que ça prendra du temps. balaa ngay paree agenda culturel bi j'ai vu aussi que États-Unis temps yi ñu ngi waxtaanee. Mhm. Euh, hommage boo xam ne dañu ko rendre euh, Michelle Obama ak euh, Barack Obama ci a tableaux yu ñu leen dessiné donc seen ay portraits. Mhm. démb lañu ko dévoilé il paraît ci mhm. benn galerie bu mag. bu nekk Washington foofu d'habitude euh, duñu fa teg portrait wu lu dul ay icône donc tu parlais de de de de Michelle Obama. waaw ndax euh, affaire bi dellu si on vous montre on te montre les images. d'accord d'accord bu ca kanamee tuuti peut-être de toute façon Obama ak euh, comme li may wax Michelle Obama ak Obama lu ñu leen defaral rek defe naa ne delloowaat a njukkal si taxawaayu Obama ci. quelques années de règne yi mu def euh, ci réewum defe naa ne comme on dit ci wolof sans mm parce que il paraît que seen galerie boobu noonu à chaque fois qu'il y a un président bu bàyyi. Mhm. Euh, dañuy jël portrait am. portrait def ko exposé ko donc euh, depuis que Barack euh, euh bàyyi ñu ngi doon xaar portrait am ci galerie boobu. Mm -hmm. avec un artiste peintre qui s'appelle Steven Spiel euh, Stafrola déedéet. Steven Spielberg moom portrait am dafa nekk foofu artiste bi mu ngi tudd Villay double W I L e I Okay, d'accord, ah. d'accord. <laughs> Comme nous ne pouvons prononcer, donc regarde, c'est ça. Okay. Donc ça s'est passé hier. donc euh, Michel avec Barack Obama. Euh, ci seen portrait bu ñu leen defal exposé ko ci musée bi et tout le monde a apprécié. oui c'est pas la même chose. que Instagram depuis deux minutes. depuis hier tout le monde en parle. les gens sont tellement fiers de ça. ñoom en fait dafa nekk couple présidentiel boo xamante ne dañu am benn aura bu ñu am. même bu fekkee doo américain da nga leen di bëgg. am charisme ba pare surtout. parce que man à un moment donné. Euh, quand j'ai vu ça euh, ci information yi je me suis dit Barack Obama ak Michelle. Ah non vraiment ça m'intéresse pas. mais à force di ko dégg ñu koy wax ñu koy wax finalement euh, da ci euh, mm. prêter attention. et il faut que fekk dafay dafay euh, sargal jabaram. il dit toujours du bien je trouve ça formidable. les hommes prenaison <laughs> de la graine. oui parce que happy wife happy life. ex prends-en de la graine. <laughs> fi mu ne nga bëgg. voilà donc euh, agenda culturel bi tamit dañ ciy ñëw ak yow Aïssatou Paye Fall. donc euh, nuit de l'oralité ak docteur Massamba Gueye. Euh, foofu ce centre culturel Blaise Senghor. ak Massamba Miroir Club. ok voilà ça? oui oui tu as raison Massamba Miroir Club. <laughs> à 18 euh, defe naa nañ na si ñëpp taxaw. Hmm. ci yëfu xew-xew docteur Massamba Gueye boobule. Euh, ba tey centre culturel Blaise Senghor euh, benn ciné concert buy am le 17 février à partir de 19h30 ak Ali bu fay def benn concert waaye teewul dina am benn projection de film bu tudd live Saraba maanaam day am day am tamit benn migration ak identité maanaam suñu suñu melokaan ak suñu nekkin euh, ginnaaw loolu euh, am na benn exposition bu Sely Rabi euh, amal door na depuis le 5 su ma ñu ngi koy amal du 5 au 17 février lay am foofu la ci galerie Le Manège. voilà donc loolu mooy agenda culturel bi ak Aïssatou Paye Fall merci en tout cas ci li nga jox ci wàllu culture donc Euh, mooy doog a jot xam nga di wax di wëraale li ngay wax en même temps. <laughs>